ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey dox ci diggante général bu Malika ak Ibou Ndiaye Obali lu xew am na ku naaj am na ku naaj maa la ko wax am na ku naaj lu ma wax jàppal sëñ Bas am na ku naaj sifle waat na Obali ndeysaan Obali ngàdd na ko ngàdd na ko ndeysaan ngàdd moom bokk na ci làmb làmb simple ku xam ni ngàdd ca la bokk ña ca ñoom ñaar Ibou Ndiaye Diof yor ak général Malika général jàpp na sol na ko général sol na yëlëbu na laa ilaha illallah combat bi mënul yomb ku daan da dem final ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu ndeysaan mënul yomb ñaari xale yi Malika ak Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu xonq li général Malika moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan demi-finale terrain gaal gi journée Jax production ndeysaan lamb ji foo sànni mbàttu mu tag lii moo lay wan ni amateuru lamb yi dañoo namoon lamb lii moo lay wan ni lamb rek la xale yi bëgg ay xale yu ndaw nga fi gis jël na ko mu bañ ndeysaan ñoom ñaari xale yi mënul yomb dañoo mës a daje fii mu am nu mu demee du mën a yombaat ndaysaan Ibou Ndiaye Obali ndaysaan Ibou Ndiaye Obali ak général bu Malika Ibou Ndiaye Obali général Malika Ibou Ndiaye Obali général Malika léegi am ko ci sëriñam am lay Senghor yaa ngay wàcc Ibou Ndiaye Zé dagg na lang gi demee na wet général jël na Ibou Ndiaye am na lu xew arbitre bi sifflé na avertissement obali benn sifflé waat na sifle waat na jàppante nañ sàqat na ko mu bañ jëli na ko mu bañ jàppante nañ ñaar obali mbot général biij na ko jox na ko aas taxabal na ko mu bañ takk ba maadu mujjee wat leer na bañ na combat bi mënul yomb déedéet mënul yomb déedéet mënul yomb ñaari xale lañ déet yomb général Malika Malika la jugee déet déet yomb Obali parcelle la dëkk déet déet yomb ñoom ñaar ñu war laale fii ci terrain gaal mu nekk seen daje bu mujj ñaareeli daje boo xamante ni saison bi weesu. avant Covid bi laale woon nañ ñoom ñaar Ibou Ndiaye daan bi yoon ñu dajawaat fu muy mujj jàpp na Zé jàpp na Ibou Ndiaye door na ko bañ na suñu kaw lañ jëm bañ na waaj leen mbot mbot laa ilaha illallah ala yaa ngi noonu général bu Malika ngi noonu ndeysaan ay waay toog leen toog leen te yàlla tax Général Malika jël na ndam li